donc Boucar ñu jàll si revue de presse lutte bi 100 pour cent lutte bi ñu commencé ko ak sunu lamb sunu lamb dañuy def benn papier si Fass Ndakaaru ñu ne l'agro Forza Gris 2 en dents de scie Fass Ndakaaru fabrique d'espoir en chute libre waaw boo seetloo ils sont en chute nekk tey. Mm. on peut dire que xëy nga dépassé fii ci làmb. Mm. Euh, boo ak ki nga xamante ne tey moo di na ne tey blessure moo leen gangrène tey ba xëy na tax seen carrière xaw a li ñu naan euh, xalam na ba neex boo ak nga xamante ne. rëg mu tegle jëli mu ah. jëli la colosse doomu dàngu. xëy na aussi loolu bokk na si li ko xawoon a handicapé mm. Mhm. gis nañ nag mu dem jëli doomu dàngu xëy na combat la boo xamante ni tey bu si génnee tey dina ko mën a permettre nag tey mhm. xëy na ñu mun ko intégré tey ci VIP yi pourquoi parce que Reug Reug ñu ko daan tey dugg na ci VIP yi te Gris 2 boo seetloo tey euh, am na place foofu noonu tey ah, parce que soxla nañ relève tey. bu mhm. dugg tey ci biir VIP yi vraiment. d'accord Dembélé les espoirs de face en chute libre. waaw mais keroog. Forza qui dégringole le Cobra n'a de venin ainsi de ci Ibrahima Mbaye keroog Ibrahima Mbaye waaw. waaw xale yi melatuñu comme avant di daan di ñëw mooy li Tidiane Faye wax aussi. Mhm. parce que mbër yi dematuñu entraînement kenn ku nekk dafa yaakaar ni champion la. Mhm. day dem musculation tant que dajewuñu écurie ba. di mhm. def ay contact di mayante xalaat di yokkante si ay xam-xam lam mënuñoo def par performance. te lu ko indi tamit lenn la boo xoolee Lac Rose dëkkatul Fass mu ngi dëkk Gadaay. Forza. mu ngi ba ba valsé entre Bargny ah ak Medina. Mm-hmm. xam nga. Grideux Grideux moom it tamit dëkkatul Fass. ay Pape mu ngi ay Pape Ndoye tamit mu ngi dëkk Gadaay si mag. ba tax na pour ñuy réguler entrainement mënatul am. Mm-hmm. ba pare motiver amatuñ motivation. ñi dañoo yàgg ci làmb amatuñ motivation. xale yi ñoo gën a motiver nag. làmb nag ñu fa gën a mën a am dara mooy xale yi parce booy doog dugg ci làmb commencé am ay millions. da ngay sawar moo waral ñoom booy jóob 2 ñoom Fëgala bu ngoor ñoom mm. jeex jaama ñu mel noonu si génération yu ndaw yi ñoom ñoo ci mun a am dara mm. mais ñii dañuy lijjanti pour am dépense mm. moo tax combat day am parfois ay en mois la ñuy waaj wala deux mois moo tax mu bëre ay match nul Lac kenn mosul xalaat mu ñëwoon di la bëreel match nul contre Fils de Balla mm-hmm. Lac Rose bi nekkoon gaynde j'attaque je cogne et je loolu moo nekkoon ci moom nekkatul ci moom. Mm. Forza boo dajee ak moom benn mbër moo ko xaaw a sonnal moo mooy super étoile mais moom Forza moo ko mujjee daan. Mm. te super étoile combat bu métti bu méttee métti. Mm-hmm. super étoile c' est le seigneur des moom moo nekkoon le seigneur de de des arènes. Mm. ñaata kawoo la def kenn mënu ko calculer. xam mais ñii dañoo démotiver. dañoo am euh, dépense la daw daal. Mhm. Forza boo xoolee carrière dafa tardé. Mhm. waaw dafa tardé bu baax. Mhm. xam nga Forza gars yi lu ñu am ci làmb amuñu ko. waaw parce que amul ay yenn millions yi amu ko. xam nga yenn investissement yi amu ko donc ñi dañoo démotivé wu. Fass moo am espoir benn espoir moo fa nekk bu baax moom mooy Serigne Ndiaye numéro 2. Serigne Ndiaye 2 ah, Tidiane espoir Fass yi dañu nekk en libre comme Lansar wala. wala yéen nekku leen en chute <laughs> waaw mooy li may wax rek chaque jour xam nga làmb moom chaque jour xew la. Hmm. yàlla da lay ayal waaw lagros moom daanaka amul lu mu def si làmb. Hmm. kenn xalaatul làmb yàgg ba su def lim war a def lay def toog ko ku ne xamul ne gaynde gi nekkoon sama. Hmm. Gris 2 tamit waxi noppi rawatin nag Forza kon donc loolu moom làmb te li kii wax rek euh, démb li wax laay wax. des fois day làmb day dem benn moment boo xam ne il faut dafay xaw a day xaw a si yow. Mm-hmm. li nga doon boo ko amatul. Mm-hmm. il faut léegi réussir il faut nga dem uti loo def boo amee njaboot il faut nga uti loo or pour yóbbul sa njaboot. Mm-hmm. te gaaw ci benn la teg la fële. ñoom boo safee ba safatoo rek dañ la war a seppi sànni. au lieu la delloo si la déedéet. yow yaay di kër kër yi njaboot ak sa mbokk ba mën a dellu si waat. boo safee safatoo dañ la war a seppi sànni la ñoom seen xel loolu la daj. moo booy bëri di daan. bu am sa comme dix combat boo amee benn defet rek non yow ku bon nga yow yow dara. Hmm. yow doo dara waaw loolu la ñuy bàkkee ñun. Hmm, dëgg la moom loolu ànd daal. moom ah, ah. bu ñu jógee foofu Boucar dañuy dem record record ñoom dañuy jox parole ki nga xam ne Ramadan des arènes bu réalisé par Assane Walu Gueye ñoom dañuy joxe parole euh, Birahim Seck président écrit fekkee ma si boole nee na on doit revoir l' arbitrage dans la arène. Hmm. Ah. waaw on doit revoir l'arbitrage dans gis nañ nag tey récemment tey peut-être un mois wala deux mois yi ñu génn. Hmm. vraiment tey problème arbitrage nekk na source de polémique nekk na source de discorde. Hmm. vraiment gis nañ ñu bëri tey dénigré nañ arbitre yi li ma à chaque hmm. euh, arbitre yi nag ay nit lañ rek bu ñu fàtte loolu. ay euh, nit lañ yoo xamante ni tey vraiment tey ku si nekk xëy na da am ay sensation day am ay yëg-yëg des fois aussi da nga juum di nga def erreur l'erreur l'erreur est humaine ne souvent rek gis nañ aussi des fois mhm. war nañ gën a leen gën a soññaat gën leen encouragé waat gën leen motivaat aussi ñu gën a tëggaat si liggéey bi si yoon parce boo seetloo tey tëggu journée boo xamante ne c'est à coup de centaine coup de soufflet bi reposé aussi mbagg benn nit wala ñaari nit aussi. Hmm. souvent day xaw a diis. Hmm. te xam naa ne genre tijaani des fois dañuy gars dañuy jàpp ba jàppale arbitre yi. arbitre gëlëm du xam sax lu mu war a siffler. wala mu jël ci décision sax mooy taw si am waaye en tout nañ gën a daal gëstu daal des fois seen seen arbitrage comme que ànd nañ fi VAR. waaw bi aussi li may wax rek man mën naa ne échec la d'une part. parce que mënoo yow combat hmm. day andi benn discrimination benn ségrégation bi am. Mm-hmm. te benn côté aussi li may wax rek VAR bi arrangé wul CNG. VAR bi. Mm-hmm. arrangé wul CNG parce que CNG léegi mën na ne tey xaalis la ñuy wut. Mm-hmm. CNG dafa nekk dafa ñëwoon pour régulariser làmb. dafa ñëwoon tey pour protéger mbër yi. làmb daraan am mbër bëre ba pare du ci turali kaaw. làmb daraan am lutte simple ñu teg ko ba final quart de final daw bëri bëri final dinaa fan la promoteur bi jaar. CNG loolu moo nekkoon du rôle am tey ñëw régulariser làmb sécuriser mbër waaye boo seetloo tey CNG léegi xaalis lay wut. wéccet lay wut nu mu koy amee recours yi. Hmm. combat day pare Tidiane Faye daan mu leer ko ne Tidiane Faye bi moo daan war mu jox victoire ñu ne ko demal nga déposer recours andi sa 25000. Hmm. te gis nañ ne VAR ba mu amee ba léegi tey li ñuy nombre li ñuy déposer recours tey bëreetul kon benn côté tey mën nañ tey VAR bi arrangé wala CNG. Hmm. ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne vraiment daf si am te vraiment c'est à c'est à c'est à déplorer. on doit ndeysaan Birahim sec waa euh, xaw ma woon ni moom mooy léegi président fekkee ma ci boole en tout cas. Mhm. ku baax la ku bëgg làmb. Mhm. grand bu baax la en tout cas vraiment fekkee ma ci boole yàgg na ci. su demee ba ñu fal ko président tamit loolu baax na maa ngi nuyu euh, ki mel ni jëf jël ak Cartouche ah mm. <laughs> ñoom ñoo nekk vraiment ñoo créé écurie bi buñ buñ kitee ci dóor dóoraat mm. amoon ci problème descend jëf jël mosoon na fi am problème ak jos mm. ba ñu dem euh, police ñu jàpp ko xam nga si la ñuy gerte mais je pense que na nekk sa consultant ou bien Père Birahim bu dee Birahim Seck bu dee Père Birahim boobu la moom waaw dafa mel ni mos na nekk sa consultant photo bi xawul leer temps yi passé ah waaw non je pense waaw day liggéey ak ñoom. Ousin production waaw moom Fatou Balla ñoom ñëpp des di leen di a une très grande connaissance de la lutte. waaw ku bëgg la. ku bëgg làmb la waaw la ku ku mm-hmm. disponible ci làmb aussi. léegi mm-hmm. léegi arbitrage bi aussi yàgg na quoi parce que mooy boo xoolee arbitre yi nag CNG ñoom ñëpp dañoo expérimenté boo xoolee seen biir amul fa amul fa ku bees. Mm-hmm. waaw yàgg nañ ci am nañ expérience. mais comme euh, lépp li lépp amul benn œuvre humaine bu parfaite donc nañ gën a améliorer wu parfois bu dee sitoor la c'est le monsieur avertissement hmm. mais maîtriser na làmb xam na ko te te fi xelam dal na ci hmm. ah ku mel ni ñoom euh, Aboubacar Dramé ñoom Mathieu Mané Malick Ngom hmm. c'est des arbitres vraiment très très très réfléchis donc bu amee problème arbitrage gaawul am nag parce que ni nga koy teg ci yoon wax dëgg yàlla yow sa combat bëggoon nga VAR bi ñëw de waa ñëwul. waa moo tax man bëggoon nga mu ñëw de. non xam nga li gëmal looloo ma si gën a jaaxal nag. parce hmm. bu demee bañ naan booy jëm booy andi vaar da ngay fay promoteur day far fay pour vaar ñëw. Hmm. day fay. Ah promoteur day fay vaar pour vaar ñëw parce que CNG moomul vaar ba. Ah. promoteur bi day fay. pour vaar ñëw. ok CNG moomul vaar bi. moomul vaar bi moomul vaar bi. Hmm. révélation la CNG moomul VAR bi day promo day fay VAR bu VAR ñëw kon nag tey jii bu ñu ba fay gi na bëgg am te yow nga nga ko waa fi mbëri yow CNG. Hmm. yow yaa ne yaa jiite mbëri yëpp. ñii dañu leen defar VAR ñii duñu leen defar mbaar ñii dañu leen defar VAR ñii duñu leen defar VAR yow est que doo jël affaire defar saar sa bopp. mu te loolu moo doon yoon. Hmm. promoteur bi simple bi day dagg cent cinquante mille. pour promoteur bi day dagg trois cent mille. licence ménager day dagg cinquante mille mbëru mbër day dagg dix mille franc mhm. simple mu dagg di cinq mille franc mhm. léegi nag ñëpp mu war a dem fan la ñu war a ñëpp ci CNG mhm. boo demee ba naan carrément promoteur bi daa war a organiser làmb nga ne lan danga war a def frais d'organisation mais pourquoi bu dee yow yaa moom yaa war a jiite yaa ñu jiite ñooñu ñëpp nga ne ko da ngay dañuy dem VAR léegi frais d'organisation da nga ci yokk lii pour VAR mën a ñëw boo ko defee décret dañ koy dañ ko appliquer par la force yow yaa jiite yëpp. da ko war a def décret ñu appliquer par la force. yow nga xool nan nga war a lijjantee ba savoir ñëw. Mm. mais bàyyi benn nit yor ko maam nit moom ko naan nañ ma pour pourvoir ñëw su ko defee yow nga intégré say say say kii nii say arbitre arbitre yi ñëw te dara du leer. da ngay def mm. dara du leer da ngay pare ñu dem kii nii ba mujj da dem sax euh, nu ñu koy wax ne CNG di def say recours di teg. li ma gën a métti ci côté boobu noonu. Birasine xam naa ko mooy sidaat. Mm-hmm. naa ko wax muy dégg. Mm-hmm. il fallait moom mu waxtaan ak ay tam te kenn du leen wax boo contesté arbitre sax duñ la faale. Mm-hmm. boo contesté arbitre duñ la faale. te loolu du yoon. arbitre dañuy juum kenn waratul ay nit lañ kenn waratul ko. mais munoo def benn combat boo xam yëpp da nga xam ne carrément da ngaa contesté arbitre am kon mbër mbëroo mooy perte. ay dañoo juum rek loolu dañuy duñ kase victoire duñ def def kase victoire duñ def dara. dafa juum rek dafa juum léegi bàyyi loolu validé ko mu continué loolu noonu. loolu dafa yomb. ar bi dafa juum da nga war kase victoire bi te xam ne karam dafa juum. te yow prise yi ngay def il faut vaar taxaw. non du même bu dul vaar même bu dul vaar. taxaw hmm. même bu dul vaar taxaw mais na ko teg si yoon bu nekkee nit ki dafa dugal recours am teg ko si yoon nga génne ko. yow da nga jàpp ne recours bi nga dugal dañ la léser. non dafa wër le c'est pas normal. su mu nekkoon dama àndul sax loo xam ne ne concret wu dafa concret dama lay wax nañ dama la six internet yoo xam ne ñoo xam ne ne yor ay réseaux dugal ko. ak sa vingt cinq mille. ñëpp du ñëw a doon. te ñëpp benn la ñuy wax ñëpp la ñuy andi fee xam moom mooy loolu. Mm-hmm. daanaka mooy li ñuy wax rek chaque jour ñun duñ defar. yow moom dafa daanu wala da nga dugal recours ne waa dafa jëloon. avertissement ah, yow daanu bi nga dugal. daanu bi laa dugal. ne Nandi Fall daa laal ak contesté arbitre. contesté arbitre bi waaw. contesté arbitre parce que li tax ma koy contesté moom mooy dañ dañoo dañoo bëre ñu dem ba sit am arbitre di ko woo dafa war a ñëw bëre arbitre di ko woo maanaam def na presque cinq dix minutes xaw ma deux minutes xaw ma une minute ñëwul ma taxaw su déggee di ko xaar arbitre bi ngeen suñu diggante ma sëkkatal ko ba pare yenn saako yi war ko jox avertir naa ko toog taxawal nga bëre. Hmm. da war a avertir. Mm-hmm. léegi nag bu lan la lan lañ ma daanee par par lan lañ ma joxe defet par avertir. Mm-hmm. kon damay war a contester. contester na arbitre duñ la waat duñ la faar moo tax waa ji ne euh, on revoir l' arbitrage nee dañu war a revoir arbitrage si làmb. li ñu war a revoir si làmb daa bëri. benn arbitrage ñaar bi. trop bëri na trop même vaar bi dañ ko war a saat. ñaar ñett dañu fi ñuy teg fi ñu teg làmb ji parce que loolu dafa am solo ñun ci làmb. daanaka mënoo daje koo xam ne Tidiane bëri na daanaka vingt ans de carrière nga def ko mm. ci làmb muy mm-hmm. bëri ay rak-rakaatam lay bëreel nga ñëw di ko ñàkk affaire ci yoo xam te ne mooy mm, loolu loolu defaru làmb da koy yàq mooy dañ lay génnee làmb ji mm-hmm. parce que loolu la ñuy bëgg mooy duñ ko mën a wax waaye dañ koy jëf parce que nee naa la làmb ji bu amee tag rek bu ma toggee dama leen damay bàyyi parce comme ne may def damay def lii ci làmb mieux que ma bàyyi parce que bëreetuma ak sama morom su may rakk laay bëreel Mm, c'est vrai la donc bu ñu jógee foofu euh, bu ko dañuy dem si Tafambeur Tafambeur euh, après son retour euh, au Maroc samedi Mor Kankang va s'incliner devant moi parce que Mor Kankang ak ak kii Tafambeur ñooy dajale le 5 mai je pense. waaw Tafambeur moom ak Niang Ballo gis nañ ne depuis lors ñu ngi woon Maroc. Mm-hmm. Maroc nag léegi on peut dire que c'est très par les lutteurs mhm. ah, dem fa. mais Tidiane demagul Maroc na ji Tidiane mais xam naa dina dem. Tidiane Maroc ah. parce que fëgale bu ngor bu taxawee parce que fëgale bu ngor moom ànd Maroc lay entraîné. waaw xam naa bu bu si bu si amee kenn avance bu duggee xëy na dina dem Maroc. Mhm. xëy na gars yi ko may commencé mu dem Maroc. waaw <laughs> <laughs> mu dem Maroc gis nga ko. nee na eh, Mor Kang Kang va s'incliner. waaw moog Niang Ballo ñoo fa nekkoon ñëpp si nañ barki démb gis nañ aussi à partir de l'aéroport sax fa la def déclaration yu bëree bëree bëri digganteem ak Mor Kankang la Mor aussi gis na moom tamit voyagé na dama xamul ndax Maroc la dama xamul Dubaï Maroc te Maroc ok mm. pour ñu war a bëri nee daal Mor daal dina incliné wu en tout bu neex la mm. combat bu métti la ñuy xaarandi ñoom ñaar parce que ko am xam ne ay combat du yomb benn défaite la am te Youssou Ndour moo ko daan yaakaar kii garaaw la andi de nee na musculation boxe endurance ak. souplesse en loolu yëpp loolu yëpp moo ngi si Mor Kanka. Hmm. waaw ñeent yooyu yëpp. loolu yëpp nekk na si dèjà si Mor Kanka. Uh-huh. boxe bi. boxe bi. musculation bi musculation bi. Ah, endurance loolu mooy forum. Uh-huh. waaw bu ko indee nag kon dinañ dinañ am combat bu neex. waaw Mor Kanka Tapha Mbeur le 5 mai. Ah, combat attaquant la combat attaquant la. moo tax nee dafa andi souplesse ak endurance. waaw loolu moo ko war parce que ki muy bëreel la ki muy bëreel attaquant la boo xam te ne bu xasee jàpp du bàyyi parce que sànq action jeexut. Mm-hmm. waaw moom mooy problème te. mais nee na Mor Kang Kang moom lu mu yàgg yàgg si terre rek la jëm. ah waaw loolu moom. lay ami suma mbër xalaat sa xalaat ak sa gëm-gëm ngay wax rek. dëgg la moom xalaat ama gëm-gëm la wax. waaw dëgg la am suma moom kenn xamu ko. Ah. Ah, ah, toujours euh, si euh, record nee nañu armée bu ngéwal ak ndigal ficelé donc armée bu ngéwal armée la. armée benn armée bu ñu fi invité woon moom ak ndigal la ñu taxawal. Hmm. alburaax moo ko tëgg armée ak ki nga xam ne moom mooy ndigal donc Boucar armée am na combat. armée am na combat parce que keroog bi mu fi ñëwee sax mu ngi koy wax. mu ngi naan ne combat am bi gars ñu ngi si doon sori. pour hmm. taxaw ñoom ñaar. dëgg la nekk pour ñoom ñaar rek parce que ñoom ñaar ku si nekk su ma si defet nga jóge mm-hmm. xëy na peut-être dina mën a permettre ñu mun fu jóge mën a génn dem mm-hmm. euh, combat bu neex la combat bu neex mm-hmm. donc loolu lañu leen andi loon ci revue des titres yi sans plus tarder dama am ay question combat yoo xam ne bëgg naa ah, Tidiane Faye mosal ñu si tuuti parce que sénégalais yi coow li bari na diggante Tapha Tine ak Balla Gaye 2 tey jàngatu combat boobu analise technique boobu ban nga siy def ban analyse technique parce que boo gisee ku nekk dem na rooti ji